mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah tey nag dañuy waxtaan ak yéen ci ba nga xamante ni bëgg nañoo empoisonné yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye moom yonent bi itam ngeen bis jot na mu toog ñu bëgg koo weddi tax mu xar weer wi ñaar mbaa yëg ngeen ni moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamante ni euh, yàlla yónni na ko am na ab kéwal goo xamante ab rëbb bëggoon na ko rey mu intervenir fan la mujjee yooyu yëpp daañ ko waxtaanee tey ak ay kéemtaan yoo xamante ni moom sallallahu alayhi wa sallam def na ko ba nga xamante ni yàlla yónni na ko mbokk yi di leen nuyu bu baax a baax am mbégte ak nuñ koy àndee ak yéen saa su nekk tey nag histoire gën di mi def la ñu àndi nga xamante ni moo gën ñëpp ndax yàllaa ko ne euh, wa innaka la ala xuluqin azim tedd nga nag tabaarakallahu yaa ci gën jikko yaa ci gën. moo tax nag tey ñu war a waxtaan ak yéen ci jaar-jaaram nga xam ni nit ku nekk bula yàlla yónnee di nga am ay jafe-jafe waaye nag yàlla dina la pouvoir boo xamante ni boo ko utiliser euh, nit ñëpp dinañ xam ne kat yow la nga yor bokkul ak li nit ñi yor moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njëlbéenam metti woon na lool ñaari weer ci biiru yaayam waajuram bu góor daal di génn àdduna ñeenti atam waajuram bu jigéen dem juróom benn weer eh, atam eh, maamam génn àdduna mu toog tumuranke moom sallallahu alayhi wa sallam ba ni ko yàlla yónnee nga xam ni eh, bi mu amee trente neuf ans mois waaw ti la ko xam-xam yi waxee yàlla yónni ko moom sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni sax balaa maanaam ci njëlbéen ba am na koo xamante ni waxoon na ko ak a neexoon ma fekkee buñ lay génnee dëkk bi ndax daañu la génnee nga xam ni Xadiija moo ko fa yóbboon yooyu yëpp nag moom sallallahu alayhi wa sallam dund na ko waaye tey rek ñu war a waxtaanee ba nga xamante ni yónni nañ ko mu commencé nangu maanaam code de popularité bi yéefar yi bëgg koo xeex waral ñu xool ay pexe ngir bugg koo rey ñii jéem nañ koo rey mënuñu ko te ku ne xam ne nag maanaam pexe yi jigéen moom yàgg na ci àddina amoon koo xamante dafa def semblant ni dafa bëgg yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waral mu ñëw ci yontu bi ne ko man dama laa sopp dama laa bëgg invité reer nga ñëw gane si ma yontu bi sallallahu alayhi wa incha allah dinaa ñëw ndax moom ku ko mës a defal lu baax fayee na lu baax waaye tam moom yontu bi sallallahu du fay dara ci lu ñaaw walay sa xayrul wara yajzi bi sayyiatin yafu wa yasfaw safan an musihimi moom nag biñ ko invité reer mu daal di woo Seydina Abubakar ànd ak moom daal di dem waaye moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamante ne agg na femme bi daldi di ne préparé terrain bi yëpp fexe ba ay doomam nelaw kenn yëgul mu daal di jël poison def ko ci yàpp bi togg ko ba mu ba mu ñor wisaat ci encore poison toggaat ko ba mu ñor togg ko ba nga xamante ne maanaam tey daal moom lu mu def rek daf ci yokk poison bi muy ñuluk def na ci poison daal def yàpp bi yàpp commencé bax mu jëlaat poisson yokku ci bi yàpp bi demee ba ñor mu jëlaat poisson yokku ci nga xamante ne daal yàpp bi cent pour cent poisson la mu daal di defar këram ba mu rafet ndax tey mission bi ñu ko jox mooy faat gën di mbindéef nga xamante ne bu du woon ak moom dara du am moom sallallahu alayhi wa sallam ci loolee moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñëw ànd ak Seydina soxna si génne na reer bi toog daal koy jox ndox mu naan waaye bi yent bi bi ñu ibbee bool bi rek mel ni yàpp bi dañ ko waroof baat mu wax mu ne sallallahu alayhi wa sallam bul ma jege ndax man mii kat dama am poison ñoom ñëpp ñuy dégg ñoom ñëpp ñu ngi dégg yàpp baa wax mais am ñu naan loolu njibar la am ñu naan lii njibar la soxna si dafa yii mu ci yàlla ba daal di jooy yoonu sallallahu alayhi wasallam ne Abubakar bismillah lekkal moom itam mu daal di ne bismillah daal di lekk ndax turi yàlla dara gënu koo foor mu daal di lekk ba suur femme bi tiit ne ko man kat wax dëgg fa yàlla sama mission moo nekkoon rey la waaye te nag nangu naa ni yaay sangu àdduna ak sangu alaxira ndax poison moom kuñ ko mos a jox génn àdduna kon man bis ni ki tey ànd na ak yow lépp lu bon lu ma la doon def jéggal ma ko yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal koy jéggal mu dugg ci diine waaye mbaa yëg nga ni moom yonti sallallahu alayhi wa sallam ci njëlbeen yonenteem nekk na ci àll di doxantu ndax moom ku bëggoon wéet la di doxantu ba ci ak dégg benn kéwél di yuuxu ne ko sangu-sangu yi ñëwal wallu ma kéwél gi am na si ñu mu def waaye kii ko téye mënul comprendre bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee ke rëbb ba ne dama bëgg nga bàyyi kéwal bii ndax kéwal gii kat nee na ma dafa am ay doomam yam bàyyi ca kër ga def leen war a nampali na nga ko may dernière chance mu dem ci ay doomam nampal leen dina ñëwaat mu ne ko yow nag nga mën a xame lii mu ne ko man nag yàlla may na ma lu wax ma xam waxam lu dox ma xam jéegoom ndax man la yàlla yónni sallallahu alayhi wa mu ne ko lan moo may leer ni kéwal gi dina ñëwaat mu ne ko kon man jàpp ma otage kéwal bi daal di xool yonent bi sëgg kontaan dal di daw bi mu agsi ci këram doom yi seen ko di gattanu seen yaay ne yaay ñëw na muy jooy naan doom yi te ngeen a nàmp ngeen xam ne tey jii ngeen di ñàkk waajur ndax budul woon sax ak nga xamante ni moom la yàlla yónni moom sallallahu alayhi wa sallam ma gis tey moom laa tayle moo tax ma ni na ma may ma ñëw nàmpal nàmpal si leen doom yaa ngi nàmp naan yaay dootuñu la gisati ay yaay suñu àdduna dootu neex yaay fa ñu jëm mu ne leen doom nàmp leen ndax kama tey la sang-sang yi su ma yéexee léegi moom la ñuy remplacer ak man daal di koy rey doom yi daal di nàmp doom yi daal di nàmp nàmp ba suur kéwél gaa ngi dem di leen xool di jooy mu ne do mu ne mu ne leen doom sañu maa war yontu yàlla Muhammad ndax moom moo jël bakkanam teele ko ngir sama jëmm ji xeeb gi kon maa ngi dem doom yi di jooy pour ñoom duñu gisati seen yaay waaye nag tabaarakallaahu kéwél gaa ngi ñibbi si sàmm bi dafa rëbb bi dafa jékki seen kéwél gi di daw si mu ne noonu lii mënta nekk kéwél gi daw si daw si daw si daw si ba ñëw yàlla rof kéwél gi làmmiñ kéwél gi wax ne yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam bu dul woon ak yow du ma gisaat sama ay doom kon jërëjëf ci maanaam la nga def bàyyil ma jébbal sama bopp rëbb bi mu daal di may rey ci saa si rëbb bi yaramam daal di daw daal di tiit ne yonent bi man kat wax dëgg fa yàlla sama ngor mayu ma may ren di kéwal gi ndax xam naa ni xam na yaay kan sagam nag kéwal moo xam yow kan man mii bis ni ki tey itam man dugg naa ki diine bàyyi naa rey bakkan ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulallah nga xam yàlla ma ne ko ko waaye itam bi gën a yéeme moo di maanaam yéefaru màkka yi dañ ko bëggoon maanaam euh, weddiloo la muy wote ndax moom dafa xëy fekk makk am maanaam fay bu nekk gën ngaa gàtt ñi am ay téeméeri yàlla ñii ñaar téeméeri yàlla moom mu ñëw ne benn yàlla moo am sallallahu alayhi wa sallam ñu naan ko yow da suñuy suñu maam suñu yàlla yu bëri yi mënu ñoo suñu ay problème yow nga am benn yàlla nga naan moo fi nekk mu ni leen ñu ne ko nag boo bëggee ñu gëm la weer wii danga koy xar ñaari weer sallallahu alayhi wa sallam nga xam du def dara lu dul ci ndigal boromam yàlla jox ndigal yonent yàlla moom sallallahu wa sallam ne ko jox leen heure sàngam suba ci ngeen dégg ma bu doon Thiès mu ne leen ñu daje ci promenade des Thiès waa ñëpp daal di fa ñoo taxaw moom yonent bi wa sallam nga xam ne nag am kilifa ren moo am solo ndax nit ki boo amee ku la ngem bu am kula la maanaam euh, jiital ne ne demal bu ragal dara yàlla jox ko kàttan mu ñaan yàlla. moom it di sallallahu alayhi wa bu dee rek yàllaa ko yónni ak pouvoir bi nga xamante ni yàlla jox na ko ko mu sukkandiku ci loolu daal di xar weer bi bi ñëpp ñëwee ci penc moom yónni sallallahu alayhi daal di xar weer wi ñaari weer ñu naan noo attends weer wi xam naa rek ci promenade bi rek la yem waaye kaa ñu woo waa Tamba ci ngeen digg ma ñu woowee waa Tamba waa Tamba ñu itam waaw dañoo jékki-jékki gis weer wi xar ñaar waa wax loolu. waa Ziguinchor wax loolu waa waa Kédougou wax lool ñoom ñëpp ku ne seet ni kat weer wi xaar na ñaar ci loolee nag lañ doog a gëm ni kii yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko yónni nga xam ni du caaxaan bokkoon na ki nga tooñ ko mu baal la moom yontu sallallahu alayhi wa yentoo nga xam ni saaga nañ ko xas nañ ko embargo nañ ko waaye taxul mu mu topp ña nga xamante ni ñoo ko doon def lu ñaaw kon mbokk yi moom sallallahu alayhi wa sallam kéemtaan yii nga xam ni tey wax nañ leen ko dund na ko waaye taxul ni kat mu dellu ginnaaw ndax nit ki nag bala moo neex fa metti daañu la saaga daañu la dóor daañu la xas li moo nekkoon tey histoire bi nga xamante ne andi nañ leen ko ci diggante yoon yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yéefar nga xamante ñoo nekkoon ca màkk bu ko yàkkal jërë ngeen jëf ba suba jàmm incha allah mbokk yi.